yenn si sëti Serigne Touba yi jël nañu dogal jàppale kii di Idrissa Seck ci loolu ñu daal di taxawal ab collectif tuddee ko taxawu Idi ñu amaloon ak daje sa daaru Tanzil ngir fësal ko Serigne Abdou Khader Kébé moo yoroon seen kàddu. tey ñu ñëw fii euh, war ci euh, benn collectif boo xam ne dañ koy taxawal ngir jàppale ci président Idrissa Seck collectif bi nag euh, ñi nga xam ne ñoo ci nekk gun di ay kilifa Euh, mooy sëñ Fallu mu sëñ Moustapha Bassirou sëñ xaban mu sëñ Modou Boussa Dieng sëñ Cheikh Abdou Mbakke mu sëñ Dame Atta sëñ Sidi Mbakke euh, sëñ Mbakke Dem sëñ Mbakke Madina dégg nga sëñ euh, Yeddaali Mbakke ak ñeneen ñoo xam ne tudd ñu leen waaye avec le temps lépp lépp dana gën a fës incha bi li ko tax a jug mooy dañoo gis ne euh, ñun ñëpp ay citoyen lañ dëkk ci réew mi yàlla dogal ñu dem ba am sunu choix boo xam ne dañ ko war a am ci réew mi xool mboolem candidat yi fi nekk ñu gis ne candidat bii di Idrissa Seck euh, bëri na lu mu dajale ci euh, li nga xam ne moo nu taxoon a jug li nga xam ne moom la ñuy xool ci candidat bu baax ngir man ko jàppale ñu fas yéene nag ci élection yi jëm ñu fas yéene euh, taxawal collectif bi ngir jàppale ko fii ci Touba ak feneen fudul euh, fudul fii ci Touba. ñoom ñi lee seeti bu baax li waral ñu tànn sa Seck ngir ànd ak moom euh, ci jongante yi ñu jëm. waa turu mouvement bi mi ngi tudd taxawu Iddi taxawu Iddi la tudd lu tax mu tudd taxawu Iddi c'est du mouvement collectif la parce que collectif la boo xam ne dafay nekkandi fii ba élection yi jàll. bu boobaa mën naa soppi doon leneen mën naa doon leneen waaye l'essentiel euh, dañu bëgg a teg benn cadre boo xam ne gis nañ ne fii ci Touba maanaam euh, iddi war na fi am doole te am na partenaire bu fi nekk fas yéene collectif bu taxawee fas yéene na ko euh, collaborer ak moom gën koo jàppale pour yëf yi gën a jëm kanam loolu bokk na ci daal ay objectif am. waaw collectif bi dafay taxaw waaye ni ma la ko waxee rek Touba la juddoo waaye pour réew mi mépp la. Euh, fépp fu waay nekk ba ci bitim réew waaye l'essentiel euh, fii ci Touba ñi fi nekk moom seen objectif mooy bokk na ci euh, xool problème yi nga xam ne Touba am na ko ci côté infrastructure côté éclairage publique côté maanaam côté ndox côté assainissement et cetera côté yëpp ñu jëm koo xool su ko defee xool tamit spécificité dëkk bi maanaam dëkk bi di laaj ci ñu sàmm ko sàmmal ko diineem ji sàmm aspect bi religieux bi nga xam ne am na ko ak moom gi ko sëñ Touba moom côté yëpp ñu ñu boole ko mu doon loo xam ne dañ koy gëstu toppatoo ko maanaam eh, sàmm loo ko nag yàlla dogalee suñ suñ kii ñu jàppale it yàlla dogal ko eh, lañ bëgg ci moom mu am ñu sàmm loo ko lu mel noonu fas yéene eh, waxtaan ceeg moom bu baax a baax su ko defee yeneen barab yi nga xam ne collectif bi dana fa àgg incha allah bi lay seen liggéey foofa itam mooy ñoom itam tenir compte ci besoin yi nga xam ne maanaam collectif maanaam local boobu dana ko am wala yu mel noonu loolu daal bokk na ci li nga xam ne mooy li ko a jub sëriñ Sidi Mbacke Cheikhouna Abdou Lahat di wax ne liggéey bi lu yàgg la lu ñuy soog di fësal. donte day doo ko taxaw xañ ne waaye lu ñu yàgg liggéey la ndax liggéeyub suuf la woon te ku nekk wane sa bopp jot na fi mu ne nag te dafa am pas-pas boo xam ne dañ koo gis ci réew mi te fas ko fi yéenee jëlee te muy loo xam ne jàpp naa ne su ma juumulee moom lañ doon xeex ba tax ñu joxoon Macky Sall 65 pour cent waaye dafay mel ne daf ñoo delloowaat ci. loo xam ne sax dafay yées loolu ba tax ñu am pas-pasum nag ne xool ne danañ gis nit ku wér ku dëggal koo xam ne ci idée ci programme ci diine ci koo bokkal pas-pas mu mel ne gis nañ ci Idriss Seck lu dal suñu xel tax ñu fas yéene walanteeru jàppale ko ak mboolem bokk yi ne ci dëkk bi te mosuñoo fees ci dara te am yéene am pas-pas am fi ginnaaw di doomi kilifa ñenn ñi di boroom baat ca fañu ne ndax seen jikko ju rafet ñenn ñu di am walanteer yaa ci seen wërsëgu bopp te am yéene jàppale ko suñ toogee taxaw xalaat tënk lu mel nii ñoom ñëpp ñu sawar si ñëw taxaw ci suñu ginnaaw pour jàppale ñu ngir ñu mën a jëñ Idy mu àgg fa mu jëm loolu sant yàlla donte fekkoon nañ fi nag loo xam ne ci parteem la bokk ñoo ko doon liggéeyal hmm. te yaakaar naa ne bu doon ñii ma fa gis bokk yi ak mboolem ñi ñu mën a lim ak ñi ñu ci sën a tudd sën ñu leen tudd euh, duñ nit ñuy jayi jayi te ñu ñàkk fu ñu jëm wala ñu xamul lu ñuy def wala ñu ñuy seere ci ay détails wala ñu leen di karkaral ci ay somm nit lañ ñu seen dëkk ñor ñu di ci xeex seenu askan ñor leen xam-xam pas-pasu taalibe yi ak li ñu jànkoonteel dañ ciy teg seen bët tam mën a saafara wu te lu ci bari baat mën koo saafara te sunu baat dafay mel ne foofa dafa maax loolu lépp mu bëgg koo yeesalaat te xam nañ li ñu koy may. élection yu nar a jëm mu mel dëkk bi dañ fee tere lii di politique ba ñoom ba dinañ ci bàyyi xel bu baax a baax. ci jàmm lañuy dox ak loo xamante ni si dana convaincre nit ñi ci seen njariñ. ak fépp foo xam ne suñu mayet mën na faa àgg ngir wax ak nit ñi bañ gindiku ndax li ko jiitu ci lañ ñëwoon ci maslaa ak leeral leen ak jàppale leen ak gindi leen ba tax ñu mën a taxaw fii tey di waxaat te ñuy lancé itam suñu bokk yi ñu fi nekkal te nekk ci geneen kujje it digg nañ leen ñuy wax ci sensibilisation ak jàmm waaye loolu moom yaakaar naa ñun ci lañ ñuy fekk kantaan nag li sëriñ bi waxoon ne Touba ak li ko wër bëgguma fi lenn yëngu-yëngu politique la ko dal ci Sëriñ Fàllu ba léegi ba ci Sëriñ Blaat ne Daaru Marnaan lañ koy defe ñu ngi ci bàyyi xel na ñoom it nañ ñu sàmmale loolu comme ñoom ñooy àtte ñooy duma te kun far nga raw te kun bëgg duma duma la waaye nañ fexe ba bu ñu violer suñuy droit te bàyyi ñu massivement ñu woote ci conscience tranquille parce que xam naa leen li xaw a ëpp suñu bopp nag mooy saam euh, SICAP 1 ak SICAP 2 ak ñi ñu rocci leen ci seeni i fichier yi ñu waroon a woote ji te leeraluñ ko yooyu yëpp ay détails la yu ëpp suñu bopp mm. donte ñu ngi ciy liggéey ak bureau administratif bi pour jéem a xam exact jeu bi pour jéem leen a contrecarrer ci loolu su ngeen ko doxalee ci yoon nag jàmm dina am liñ bëgg lépp dina am yaakaar naa nag bu fekkee leen lañ bëgg indi nag loolu ci seen kaw lay këpp waaye fii moom fas nañ yéene battre campagne bi wóor nañu ci ak nite ñoom yóbbu leen ba ñu woote ci jàmm te xaddu dam Idrissa Seck mu ngi wéy di am doole fii ci biir tubaa ndax beneen kuréel bu ay kilifa yor dal nañuy boot ci ginnaawam ngir jàppale ko ngir mu am ndàmba